Mbaye lañ tàmbalee seen xew. ñaw ak létt bokk na ci ay domaines yi nga xamante ne tàggat nañ ko yile ndaw ñoom nag ñoo ngi wone seen mënin ginnaaw bi le tàggat ñoom nag daal nañ am ab financement bu jóge ci fondation espagnole bi di nu sims bi le financement mu ngi tegu rek ci projet bu ndaw bi bind. et puis xale bu génn su nu amul possibilité dugal na ci entreprise pour ñu ngi am liggéey boo xam ne dañ lay fay weer nga mën a am. financement. non chèque yi tolloowul parce que xale yi ñoom seen bopp ñooy bind seen projet xam nga xale bu nekk bu soxla ñaari cuisinière ak xale bu soxla ñaari machine à coudre bokkul xale bu nekk yaay bind li nga soxla en fonction li nga soxla la ñuy budgétiser ñu financer la. ministère bu formation professionnelle di rafetlu bile initiative. ñoom dañ caa nekk te dañ caa nekk ak partenaire boo xam ne dafa teel a xam ne dañoo war a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci centre de formation yi ngir suñ paree seen jàng ba jot seen lijaasa suñu amul tamit liggéey boo xam ne dañu leen di fay weer ñu am ay jumtukaay yoo xam ne dinañ mën a démarrer seen bopp seen i activité nekk ci domaine production. nous saluons d'autant plus cette initiative. ñu toll ci ñaari fukki ndaw ak juróom-ñaar jógee ci ay réew yu ute ñoom nag ñoo am yi le chèque financement bi toll ci fukki ak ñetti millions ci suñu koppar te nag dina jàppale ndaw ñi ñu gën a sóobu ci entrepreneuriat ngir mënal seen bopp.